waaw asalaamaaleykum waa département bu Mbacké surtout ñi nga xam ne ñoo dëkk Touba euh, di gis ay attaques yu ñuy def euh, honorable député Cheikh Abdou Mbacké ku si mel ni Matar Diop Matar Diop moom koo xam ne nii Moustapha Cissé Lo lim lim ko fi waxoon si engrais yi ñu ko fi joxoon ak jiw bi ñu ko fi joxoon loolu la war a dem. pour joxe pour jox ay leeral ndaw département bi ak waa Touba Matar Diop nag dama koy wax benn affaire seex Abdou Mbacke dàllu Cheikh Abdou Mbacke bu mu sol ba summi ko sax moo gën Matar Diop Matar Diop dàllu Cheikh Abdou Mbacke bu mu sol ba summi ko moo moo gën Matar Diop mook Cheikh Abdou Mbacke bokkuñu ci politique bokkuñu ci waasu bokkuñu ci xeet ndax euh, Cheikh Abdou Mbacke benn Euh, def nañ ko ci liste département mu xeex gañe Matar Diop moom amul dara loo xam ne nii poste boo xam ne ni am na ko xeex ba gañe ko président de la république moo ko nommé ci list au conseil moom Matar Diop amul post boo xam ne nii moom xeexal na ko boppam ci département bi ba waaw département bi fal ko Cheikh Abdou nag département bi moo ko fal kon kooku moo Cheikh Abdou ñoom bokkuñu ñoom et puis Abdou ñoom moom ñu ngi tontu Cheikh Abdou mais ñoom Cheikh Abdou waxu leen Cheikh Abdou seen patron lay waxal Cheikh Abdou du wax ak ñoom Cheikh Abdou ki nga xam ne mooy président de la république mooy président Macky Sall moom lay waxal. kon Matar Diop moom dan lay wax ne lañ yow fi mu toll nii leeral yi nga war a leeral mooy jiw bi ñu la fi dig ne la da nekk di ko taxawaaloo kafe dorom loolu nga war a jëm di ko leeral moo gën ngay dem di tontu ay Cheikh Abdou ndax Cheikh Abdou waxu la defu la Cheikh Abdou du sa du sa moroom te bés boo ko attaqué waatee nag loolu attaque terrain politique lay doon après da ngay ñëw wàcc ci département bi ndax yow département bi amul kenn ku la def naw la ndax amoo base politique Cheikh Abdou dafa am base politique Cheikh Abdou dañ ko fal ci département bi yow département bi falu la yow président de la République moo la fal kon yow amoo dara loo xam ne nii war nga ko mën a nekk di ko taxawu ci département bi beneen bi des Moustapha Seck mu Moustapha Seck yow tekki woo dara ci politique ñoo nekk ndawoon PDS président Macky Sall toog nga dem nga dem nga dem nga dem ne danga nga da danga da nga fa yaa fal président Macky Sall te loolu du dëgg mu Moustapha Seck yow ñoo nekk ndawoon JTL ci département bu Mbacké ñun xam nañ kan mooy Moustapha Seck xam nga da ngeen di war a bàyyi di politique di tappale ak ak di transhumer di di di wax lu du dëgg yow Moustapha Seck yow yow sa yow yow yow Cheikh Abdou yow waroo sax ñu nekk di tontu Cheikh Abdou ndax yow ak Cheikh Abdou bokku leen bokku leen jëmukaay ndax benn koo xam ne nii gëmoo dara si politik amoo dara loo xam ne nii war nga ko nekk di ko wax nit moo tax yow Moustapha Seck moom yow moom ñàkk jom nga ñàkk jom waroon naa tax nga bañ a tontu Cheikh Abdou ndax Cheikh Abdou seen morom si Abdou famille muy fa añe ma fa muy añe ma caat ma suur na leen yéen ñëpp yow Moustapha Seck moom loolu rek laa am lu ma lay wax beneen